أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فسيني وقتاني سنقب سنقي ينتبه صلى الله عليه وسلم من خمني من بوكتي قريش قريش بوكتي عدنان عدنان من بوكتي مام إسماعيل مام إسماعيل واجر موي مام إبراهيم عليه السلام yonent bi mi ngi bokk ci arab yi ndax arab ba tey dafa am arabul baida ak arabul mustaariba ak arabul aariba yu ñoo am arab nag moom ñaari ñaari arab yi ñooy am ndax arabul baida moom euh, amatut waaye arabul mustaariba ak arabul aariba mooy yaman yaman féete yaman foofu mooy mooy ndax dafa am ñaari arab arabu shimal ak arabul janub yi féete wetu sidd bi ñooñu ñooy waa yaman nag ñooñu kon mu nekk ñaari ñaari xeeti arab ñoo am arab nag ba tey it mi ngi bokk ci lugaatu saamiya langu saamit foofu la arab bokk langu saam moom mooy akaat ak arab ak ashur ak këldaan ak aaraame euh, ak euh, kanaan ak finiqiin ak abraniya ak euh, éthiopie làkku éthiopie bu njëkk ba yooyu ñooy làkku saamit làkku saamit luxaatu saamiya arab nag foofu la bokk maanaam ñi koy askanale saam ibnu nuux noonu lañ koy askane làkk yooyu foofu làkku arab foofu la bokk kon boo toppee yonent bi salallahu alayhi wasallam aw askanam euh, ni ko maam alaaji malik andee muhammadun نور عبد الله سيبة هاشم وعبد مناف مع قسيهم كلاب مرة كعب ولؤي وغالب وفهر ومالك نضر الكرم كنانة وخسيمة ومدركة إلياس مع مدر الحمراء سرهم عدت نسارا mahdan man yujaawisu adnaanan fa takzibuhu qad jaa min alalami noonu la ko maam alaaji Maalik yi waxee nga xam ne noonu la limee ay maamam ba ci àddinaan waaye nag dafa wax ne àddinaan képp koo xam ne jéggi nga ko rek maanaam la nga wax say wax wérut ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam bi mu agsee ba ci adnaan foofa la daadi di maam Ibrahima nag moom mu nga xam ne moom mooy maamam nga xam ne boo toppee ci àll gi day ñëw ba ci moom waaye yonent bi mi ngi yem ci Adnaan waaye ku ne xam na ne euh, maam Ibrahima mooy maamam moom nag mu ngi jóge Ur Kaldaan foofu la foofu la bàyyi ko maam Ibrahim moom nag bi ko yàlla yónnee ci aw xeetam xeet wa di jaamu ay xërëm buur ba it woote ak olohiya maanaam ak yàlla moom it nag yàlla yónni ko ci ñoom mu ñëw nag di joxal di di joxe ab waa xeetam euh, toppuñ ko lu dul soxnaam di saara ak doomam bu ndaw nga xam ne mook baayam a bokk muy lóot te lóot ak baayam ak euh, maam ibrahim ñoo bokk lépp waaw euh, maanaam mag Ibrahima euh, bàyyi loot magam la ñoom ñaar ñooy rek ñoo ko fa léegi nag ba jafe-jafe yooyu nag moo andi mu ñu dugal ko ca sawara wa ngir bëggoon ko lor ci la yàlla nag daal di seral sawara wa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim legi nak ci la mam ibrahim momit dadi gaday di Andak sara di ak lot ak gaday nak di ñew haran dadi di fay jóge rek haran dadi di fay jóge nak dadi di haran xaraan jamono yi min ci tirk dadi di fay jóge nak dadi di fi ñi wax falastin da jamono yooya tuddugutal Palestine wi ñu wax Falasta ñëwagu fa xeetu grec wu ba turu Palestine di fa dikk waaye mi ngi tuddoon Kanaan kon xeetu Kanaan woowu la fa fekk léegi nag maam Ibrahima daal di dëkk ak ñoom waaye nag mujj la fa jóge nag daal di ñëw fii ñuy wax Égypte waaw bi mu dikkee nag euh, booba mu ngi nekk ay dix-neuvième siècle dix-neuvième siècle avant Jésus maanaam junni at ak juróom-ñeenti téeméeri at lu jiitu yonent yàlla Isaa jamono yu la woon bi nga xamee ne nag ñëw na Égypte fekk fi pharaon bi booba pharaon bi mu ngi tudd Sénésirte ak Salis maanaam Sénésirte ñetteel moom la fi fekk ci douzième dynastie maanaam fukkeelu dynastie ak ñaar capital boobu mi ngi nekk list. list pharaon bi nag doon na jéem a sàkku saara waaye yàlla dugalu ko saa bu yëkkatee loxoom rek jëme ko ci saara loxo bi loxo bi loxo bi du nangoo tàlli ba mujj gi mu xam ne lii la mu daal di koy delloo maam ibrahim daal di koy may ku ñuy wax xaajara xaajara nag saara daal di jox ndigal ibrahim ndax ñoom ñaar nekk nañu yàgg amuñu doom mu ko denc ko tan ndax ndax yàlla mbay la ci doom ba ko dencee nag la ci am maam ibrahim maam maam ismail waaw maam ismail nag mu nag moom la maam ibrahim daal di mujj euh, yóbbu fale màkkatal mukarram daal di ko fay dëkkal mu daal di fay nekk Euh, bi nga xamee ne nag nekk na fa moom ak euh, maam Haajara bi nga xamee ne nekk na fa Ismaayil ak yaayam Haajara nga xam ne foofa dafa nekk benn xur woo xam ne nii xur wu ñàkk am mbay la comme ni ko alquran andee rabbi inni askantu min duriyati bi waadin gayri zi zarin inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salaata fajala afdata min annaas tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun yow de sama borom dëkkal naa sama waa kër ci xur woo xam ne nii amut am mbay lu ko waral ndax nit ñi ci sa wetu neej bi nga xamni mom nga war mal lu ko waral ngir ñi taxawal julli kon nak na nga def mboolem xol yi yépp jubal ci leen teet nga wërsegal leen meññent yo xamni ni day ci yeneeni réew di ñëw makka ndax ñu sant yalla waaye bi nga xamee ne maam Haajara euh, nekk na Màkka nga xam ne bi nga xamee ne maam Ibrahima mi ngi tàggoog ñoom daf na ko foo ñi euh, fii nga ñuy bàyyi ñu dong ci àll bi maam maam Ibrahima na ci yàlla mu ne ko xanaa danga ñoo bàyyi yàlla mu ne ko waaw mu ne ko yàlla de koo ko bàyyi yàlla de du sànku waaye yàlla dogal nag bi nga xamee ne maam ibrahima dellu na seen lekk ga ak seen naan ga dem ba jeex maam ismaila nag sonn ca la maam haajara nag doon wuti ndimbal ku ko xeetali ci doomam ji utal ko lum naan nga xam ne bu demee yéeg ci benn montagne xool du gis dara mu daal di dawaat demaat yéegaat ci beneen montagne xool du gis dara muy muy safa ak marwa nga xam ne moom la doon baagante waaye bi mu dikkee nag la fekk am ndox di ball léegi nag mu nekk zam-zam zam-zam léegi nag waaye xam nga ndox fu am rek bu yàggee rek maanaam barke di daal dugg ndax la ko war mooy day daal di naat ba noppi it picc yi dañ fay daal di bëri loolaa waral nag giiru arab gi ñuy wax Eh, banu jurhum ñoom nag bi nga xamee ne doon nañ jóge yaman doon dem saam di wuti am jëgg ndax araab yi moom loolu moom seen baax la léegi nag bi nga xamee ne nag gis nañ picc yi nag ñu ne ah fee de am ndox la bañ dikkee fekk fa ndox ma fekk fa benn soxna ak doomam yaa di waxtaan ak moom ne ko nag dañoo bëgg fu ñu dëkk waaw léegi dañoo bëggoon nga may ñu dëkk fii bu ko fee ndox mi sam ndox la ah, Ya di waxtaan daa di déggoo mu daa di dëkk kon maam ibrahima bi nga xamee ne kon toxal na haajara ak eh, doomam maam ismail léegi am nañ ñuñ dëkkal ay giiru arab gu ñu wax banoo jurhum ñu nga jóge yaman léegi nag ci la maam ismail màgg seen biir ba jël làkku arab wi di ko waxee nga xam ne kon mooy ki njëkk a wax làkku arab ci xeetu arab gi nga xam ne mooy mooy arab bi yonent bi sallallahu alayhi bokk moom moo ci njëkk a wax arab googu euh, bannoo Jurhum nag ñoom it nag bi nga xamee ne euh, maam Ismaayla màgg na seen biir ba nga xam ne ba màggee seen biir nag ba denc soxna yàlla dogal maam maam euh, Ibrahim ñëw fa Bim mu nak laaj ko borom kërëm mu ne ko dafa rëbbi waaye nak mel ni ku ko lam ko waroon lam ko waroon a accueillir daal dafa des toppatoo ko toppatoo ba jaadu ci ak gan mu ne ko nag bu sa borom kër dikkee nee ko kilifa gu mel nangam mel nangam ñëwoon na fi bu dikkee nee ko na soppi buntu néegam bi fi mu ko def baaxut bi maam ismaila ñëwee nag soxna si wax ko ko mu ne ko nee naa la yeewi daal di takkaat soxna ci gir juruxum googu ñu takkaate soxna foofa nag yàlla dogal maam ibrahima ñëwaat fa soxna si teral ko lool toppatoo ko ni ñuy terale gan daal di koy andil ndawal ak soow bi mu ko andilee ndawal ak soow nag maam ibrahima xewli ca dal leen ñaanal nak yow yalla yalla nga barkel seen soow ak seen ndawal ca nak taggo ak mom ne ko ma ngi dem mu ne ko ah siñ bi di ñëwagul way leg mu ñew xamna sori wut da genn rek mu ne ko ay ah, ma ngi dem sa borom kër bu ne ko buntu neegam bi fi mu ko def baax na na ko bàyyi noonu bi maam mu wax ko ko bi mu ko waxé nak moy manam sa soxna si nang ko soxna su bax la soxna soxna moko jural njabot gi nga xamné mooy law ba ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom nag bi nga xamee nag maam Ismaayil jóge na fi ndax maam Ismaayil ak maam Ibrahim ñoom ñaar ñoo tabax kaaba gi kaaba gi ñoom ñaar ko tabax wa iz yarfau ibrahimu qawaacida min albayti wa ismailu rabbana taqbal minna innaka anta samiul alim Ah, ba ñaan sax ab yonent bu war wacc rabbana wa ba'ath fihi rasulan minhu xamne mi ngi leen ñaanal yalla yalla nga yoni ab yonent bu bok ci ñoom lepp ñang koy ñaan bi nga xamé tabax nañ kaaba gi ba yeggalit imam ibrahim wote pour nit ñi kon makka kaaba gi taxna mu nekk jublu way bo xamne ni nit ñi dañ fay jublu si dañ fa aj mu nekk lu am daraja te am jëmm léegi nag bi nga xamee ne maam Ismaayil jóge na fi léegi nag giir jurxum nag ñoo commencé nag ñoo yor ñoo yor kilifteefu màkka ñoo ko tée bi nga xamee téye nañ ko nag nekk fa nekk fa ab nga xam ne bañ fa nekkee ab diir nag bi ñu fa nekkee ab diir nag nga xam ne eh, ki ñoo xam mudaat ibn amr moom nag bi nga xamee ne yàgg nañ fa ni ko maam alaaji malik andee wa xaaza jurhum baytallahi raziquna min baadi naabitin asfa min arrahimi wa qul quzaata بل مكة مكة غلبا من بعد تسليت نخف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في أفناء جلهم وبئر زمزم أمر تمها حسدا إذ أخرجوه لجور كان في الحرم nga يوم سنجم بوبو bi nga xamee ne waa Xusaa nekk nañ euh, waa waa Jurhum nekk nañ ci biir Màkka dañoo dem mu yàgg ñu commencé euh, di commencé génn ak caay-caay gannaaw bi naa bi fi naa bi jugee ñoo yore Màkka waaye nag gannaaw booba nag la leen giirug arab gu ñuy wax Xusaa Xusaa nag euh, ñu ngi moom it giirug arab la boo xam ne ñoom ñaar ñëpp Xusaa ak. jurhum ñoom ñaar ñëpp ña nga bokk yaman Xusaa nag moom moo ñëw nag daal di ñëw daal di nangu màkka ci ñoom xeex ak nangu nangu nangu ñoom nga xam ne biiru zam-zam moom kii ñuy wax amr mooy mudaat ibn amr moom moo ko suul moo kéwal ya nga xam ne nii bi maam abdul muttalib di di di gasaat teen ba yooyu yëpp nga xam ne maanaam Eh, ay hadiya yi joxoon kaaba gi maanaam ay jaaseeg ay ay bantak ak ay eh, ñaari kéwél wurus yépp da ko suulaale ak moom kon banu Xuzaa moom ñoo ñëw génne banu Jurhum Makka ba Jurhum sax amatut dafa mujj seey amatuñ moom nag ni ko maam alaaji Maalik waxe inna alquzaata ma zaalu yaluuna ila an jaa qusayun xulaylan xaatibal karami nee na xuzaa di méngoo màkka ba xusay ñëw ndax boo xoolee euh, giiru giiru euh, maanaam doomi maam ismaayil nga xam ne mooy àddinaan boo ko toppee Eh, ñuy wax arabu simal ca lañ bokk waaye addinaan googu ci la kinaana bokk kinaana googu nag fala si bokk si nag dippi bi nga xamee ne banu jurhum ak banu xusaa yooyu yëpp booba ñoom ñu ngi ci biir màkk waaye nag eh, yëruñ kilifteef ga yëruñ kilifteef ga waaye nag bi nga xamee ne xusay doomi kilaab ñëw na Euh, ñi daal di koy may xubbee euh, ndax xulayl xulayl mi nga xam ne boobu mooy mooy kilifa ak màkk jamono yooya booba nag moom moo waxtaan xusay moo waxtaan ak moom pour mu may ko soxna muy xubbee moo tax maam alaaji baal ne xubba wa naala min taswijiha niaman abnaa alayna aqmaaran li qawmihim xubbee nag am na ca sëy booba nga xam ne moom la am ak euh, xusay am na ca ay xéewal ndax am na ca ak njaboot goo xam ne nii ñoo gën a kawe ay bitiw ci seenu ñooj ci seenu askan waaw ndax xubbee nii bi nga xamee ne euh, xusay denc na ko am na ci abdu manaaf am na ci abdu daar abdu manaaf moo jur euh, Hachim Hachim moo jur Abdul Muttalib Abdul Muttalib moo jur Abdullahi Abdullahi moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xubbee am na ci ak njaboot gu kawe moo tax maam alaaji maalik ne baada xuleylin qusayun qaama mujtahidan li an yalil amra fihrun akramul qutami kon bi nga xamee nag xuleyli faatu na ci la Qusay nag daal di récupérer maanaam kilifteefu Màkka nga xam ne léegi ci Qusay la kilifteefu Màkka doog a agsi ci Quraysh waaye la ko jiitu Quraysh amuñ ci woon benn pouvoir ci biir Màkka léegi Qusay nag bi nga xamee ne moom toog na mu yor kilifteef gi maanaam li ñuy wax euh, ba créer yu bëree bëri maanaam li ñuy wax siqaaya maanaam xujjaaj yi bu ñëwee di aj si li ñuy naan xusay moo yore kilifteef ga nga xam ne dañuy bënn ay teen euh, di ci di di di am ndox di ko jox xujjaaj yi loolu xusay moo ko créé waaw ak euh, li ñuy wax rifaada maanaam ajkat yi xéewal gi ñuy lekk di añ yu yooyu xéewal yu yëpp xusay moo ko moo ko indi ci màkka nga xam ne maanaam euh, Euh, gane suñ borom yi ñëw di agsi maanaam yëpp maanaam xéewal yi ñuy xéewloo xusay moom daal di koy andi ak li ñuy wax euh, caabi kaaba gi xusay daal di koy euh, jël waaw nga xam ne loolu di teraanga ju rëy waaw ak li ñuy wax drapeau drapeau bi nga xam ne nii ma maanaam bu ñuy bu ñuy bu ñuy xeex di di xeex drapeau bi loolu daa nekk ci loxob xusay waaw ak li ñuy wax daaru nadwa maanaam amba amba amba eh, assemblée bo xamné ni fa lañuy dajé difa waxtaan difa difa di fa nasaka maka, mbiram quraish ak mbiram makka yoy yépp eh, qusay moom mo tawax giro nadwa nga xamné manam légui giiru quraish gi yépp fa lañuy dajé eh, lépp ci kristiyanu qusay kon qusay bi nga xamé nak kilifteef yépp manam manam dara nak na quraish bi nga xamné yoy yépp Euh, Quraysh am na ko ba noppi lépp mu ngi tegu ci loxoom Qusay mu nag bi mu fi jógee nag ndax li ko waral mooy Qusay bi nga xamee ne euh, am na Abdu Manaaf am na Abdu Daar waaye Abdu Manaaf nag moom la nit ñi gën a bëgg nit ñi lañ ko bëgg ma ab sang la nit ñi bëgg ko lool mu am teraanga am barke waaye Abdu Daar nag milutoon noona ci la nag euh, Qusay mii seen bàyyi daal di jël ndax dafa wax dafa wax Euh, Abdou daar ne ko danaa la sang naa la jox teraanga ba nga xam ne nii maanaam euh, kenn du la ëppale daa di fopp nag teraanga yooyu yëpp daal di koy jox Abdou Dar léegi nag waaye Abdou Manaaf it waxu dara bàyyi noonu bi nga xamee nag ñoom ñaar ñépp faatu nañ nag ci la ci la ci la ci la doo seen doom yi nag doomi Abdou daar ak doomi Abdou Manaaf ñoom it nag daal ne loolu d'accorduñ ci waaw d'accorduñ ci loolu waaw léegi nag gannaaw ba suñu maam moo ko moomoon mu joxoon ko seen baay suñ baay bàyyi noonu suñu baay bàyyi noonu léegi nag dañ ci dañ dañ koy bokk ñee it lànk ñu ne kon dañuy xeex waaw bañ demee nag ba nga xam ne jàkkaarloo nañ ba nar a xeex nag te lañ waxtaanaat am ñu dox ay tànk jéego ñu waxtaanaat seen biir ñu daal jël rifaada ak siqaaya daal di koy jox haasim maanaam li nit ñiy lekk euh, gane suñ borom yi ajkat yi bu ñëwee yi ñuy xewlu ñu jox ko haashim euh, li ñuy wax euh, siqaaya maanaam naan géeg yu ñu jox ko haashim léegi caabi kaaba gi ak drapeau bi ak daaru nadwa léegi ban abdu daar daal di koy téye ñaari d'accord daal di juboo ndax waa booba it wax dëgg yàlla giir Quraysh yaatoogut te buñ xeexee mën ñoo néew doole loolu lañu xalaat ñaari waxtaan daal di juboo mbir ma daal di sedd léegi nag euh, moom euh, Abdou Manaaf nag moom moo jur Hachim ak euh, Abdou Sams ak Muttalib am na ñeneen waaye Hachim moomu nag ñëpp ñuy askanoo ci banu Hachim ci moom lañ bokk moom nag moo Abdou Sams ñoo bokk ñi dañuy wax ne ay seex lañ ñu bokk lépp ay seex lañ Abdou Sams nag Mojur jur umayya umayyata umayya moomu nak harbu harbu Mojur xarb jur abu Sufyan maanaam mbooleem ku bok ci eh, banu umayya ya nga bok ci umayyata moomu ah, abd nak rabia rabia Mojur jur utbatum na rabia utbatum ibn rabia Mojur jur hind bint utba ah hashim moomin nag eh, moomin nag eh, dafa mujj dem ci commerce yi def la dem madinatul munawwar am demee madina nag fa la denc soxna soxna su nag moo jur abdul mutalib ñi koy wax saybatul hamdi moom nag bi nga xamee ne haashim faatu na ah, ki ñuy wax mutalib mutalib moomu nag nga xam ne mooy rakki haashim moom nag ah, bi nga xamee ne abdul mutalib dëgër na moo dem jëli ko moo dem Madinatul war Yasrib daal di jël doomi magam juuju nga xam ne ñoo ñoo bokk euh, Abdu Manaaf mu dem jëli ko andi ko euh, bi mu koy andi nag sëf ko ci gileemam nag maanaam togg ko ci gileemam léegi nag ci la waa Màkka naan ah Abdul Muttalib jaamub Muttalib ah waaye nag du tuddut mi ngi tudd Shaybatul Hamdi waaw mu leen jaamu Muttalib mun leen déedéet ki sama doom la sama doom yi sama doom yi mbokk la waaye du sama jaam waaye nag loola moo mujj wéy ba mujj gi ñu ko Abdul Muttalib jaamu Muttalib waaye saybatul xamdi la jur saybatul xamdi la tudd euh, Abdul Muttalib nag moom nag ku néewooni doom la bi nga xamee ne dem na ba kilifteef bu màkk daal di dugg ci loxoom moom it mm, bi nga xamee ne yàlla jox na ko ndigal Euh, ci ak gént pour mu gas zam-zam ndax xam nga boobu moom it wàllu naan naan géeg yooyu naan dal gi léegi dugg na ci loxoom ci la gént nag ñu ne ko demal gas zam-zam daa di koy bim xëyee nag ñëw di ko gas ci ànd ak benn doomam rek ku ñu wax xaaris alxaaris moom rek la amoon benn doom ñoom ñaar nag bu ñëwee di gas na waa Quraysh ñëw nag naan ko fii doo fi gasak fii nii diggante euh, diggante bii doo fi gas ndax fii fi la sañ xëri mi nekk waaw wurug fee gas nangam nangam di ci coow ak moom moom muy gas rek waaw ba nga xam ne gas na di gas di gas ba mu yàgg ci la ñaari kéwél yi nga xam ne moom la mu daab ibn amr daal di suuloon daal di génn génne ko ak ya ak euh, bant yaag yooyu léegi nag bi nga xamee nag ja euh, génn nag ñu ne ko nag lii ñu dañ koy bokk dañ koy bokk mu moo ko yow dong ndax Ismaayil euh, moo ko moom moomoon zam-zam te ñëpp la bokk jur kon dañ koy bokk mu leen déedéet lii ko bokk maanaam ndox mi moom nanguut ñi bokk ko ndox mi sama ndox la ndax maa ko gas dama ci am digal gas naa ko ndox mi génn dama koy dama koy yi ñi aj si màkka gane suñ boroom yi waaw daan daan daan ñu ne ko nag lii or bii nii duñ la ko bàyyee mu leen léegi nag mën nañ koo lii ma mën nañ koo tegoo ay bant léegi damay am ñaari bant kaaba gi am ñaari bant yéen it ngeen am ñaari bant bu ko tegoo ko waaye bañ ko tegoo nag maanaam kéwéli wurus ya moom dafa daal di bokk ci cërëb kaaba gi maanaam banti kaaba gi moom dafa daal dal ca wurus euh, wurusu euh, kiwél ya maanaam kiwél ak wurus ya léegi nag mu daal di koy fab daal di koy euh, teg ko def maa ko daa koy daa koy def ko ca buntu kaaba gi maanaam rafetale ko nga xam ne maanaam boo dikkee rek da nga xam ne lii moom lu rafet la loolu lépp mu daal di koy def moom maam kii Abdul Muttalib bi nga xam nag nee nañ ndox mi doo ko moom yow dong ndax suñ maama ko suñ maama ko fi kasoon kon nag dañ koy bokk moom it nanguwut ba mujj gi ne ñu ne léegi nañ dem ci benn waaye mu àtte leen benn kaahin mu àtte leen ba dem ba ci yoon nag ñu réer amuñ ndox ñu manqué am ndox lool ba mujj gi nag ñu ne nag léegi daal fii fii ñu jëm ni daal xam naa daal bu moytuut moom faatu da ciy kon daal bay boo ñu toog rek waaw bay daal dañ mujj xalaat sax mooy ku ñu nekk na gasam pax ku ñëk faatu ku faatu rek sa morom su denc la keneen ka ci def nag moom bu fi ay nit jaaree denc ko abdul mutalib neen déedéet na ñaan yàlla rek yàlla moom ak may la nañ dem bu naagu ci yërmande yàlla lañ dem ñu ne ko ñun demuñ waaye nag bi nga xamee ne moom war na fas wi rek ci la ndox daal di commencé ball commencé sottee ah mu daal leen woo ndox am naa ndox ndox ñëw na ndox ñëw na yaari naan ñoom ñëpp bañ naanee ba yeggal nag ñu war a continuer dem nag ca àttekat ba pour ma àtte leen nag ñu ne ko déedéet yàlla àtte na ba pare ndax ki la jox ndox fii ci àll bi nga xam ne ndànk fay foy la kooka moo la moo moo la jox ndigal nga gas zam sam kon yow delluwaatal ca sam zam kenn du ko xëccoog yow delluwaatal ca zam-zam kenn du ko xëccoog yow waaw bi nga xamee ne ñëw na ñëw si na màkka dafa nisar nag ndax lii ñu ko teg nii lépp maanaam néewi doom moo ko waral xam nga arab yi moom bu fekkee da jaboot surtout nga jabootee ay doom yu góor moom dañ lay jox cër kenn du la ñemee laal ci la nisar nag daan ne yàlla boo mayee fukki doom yu góor danaa rey fukkeel ba def ko asaka comme ni ko si Moussa Ka waxee yallaahu yaa rabbal aasal bayti maa ngi dagaan bis boo ma wërsëgalee ay doom fa da na ray fukel ba muy atakam lu mag màgg na ci suñ leer ga yàllaahu non la ko waxé ci barzan motax mam maam mel dané wa kana nadira nadrin id hum tamau ala adiyatihi min shiddatil adami fa naala maa raama min mawlaahu ashratu abnaa in yuciinuuhu والقدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي أعدت واعتزمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مزاهما خارجا بالوالد, بالوالد الكرم وأما نحو إساف ثم نائلة مريد إيفاء ذلك النظر والقسم قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في الفهر لم ترمه نمضي لخيبر فيها سيب كاهنة مستعمرين بما قالت بما قالت ذوي السلم قالت فكم دية كنتم تدون بها qaalu laha ashratu asratul abali min naami ni ko maam alaaji Malick waxe daf ne dafa daldi di nisar bu ko yàlla mayee fukki doom dana benn ba def ko def def benn ba nisare ko maanaam ndax dañoo dajaloo di ko lor ci lor yi méttee métti waaye nag bam ñaanee yàlla nag denc yeneeni soxna am ci fukki doom léegi nag nga xam ne man dem nañ ba dëgër ba mën koo dimbale bu xeex amee ñi jàppale ko bu ab liggéey amee ñi jàppale ko ca léegi nag ca la tëdd ba guddi nag gént ne ko nag am lu ne ko nag la nga deelante woon maanaam la nga kóllërante woon te dogu woon ca léegi matal ko mu tëdd ba guddi gént am lu ko ko wax mu tëddaat am lu ko wax mu am lu ko wax ah mu daa di nag jàq-jàq metti daa leen di dajale ñoom doom yooya nag waxtaan ak ñoom daa leen wax mbir ma nan deme woon ñoom ñépp ñi daal di nangu nangul ko loola mu daal di leen bantale bim mu bantalee nag bant ma nag dal ca abdullahi mi nga xam ne nii mooy waajuru sang bu tedd bi mu daa di jëm nag ca côté isaaf ak naila isaaf ak naila ñu ngi ci wetu euh, kaaba gi maanaam ñaari xërëm la ba mu agsee foofa nag foofa ci diggante buubu nag la la tër abdullahi nag fas yéene koo rendi ndax mottali ak nisaram léegi nag xaaluuhu bu njëkk bi mooy ay bañam ay ay bañam ña ko contrôle xaaluuhu nee nañu ko moo tax ñaari xaaluuhu yi dañoo bokk nañ leen di binde waaye bokk nañ leen di waxe xam ne laa tafal bidaa abadan kay laa yuraa aadatan fii fii fihralam tari ni ñu ne ko lii de bu ko def moom ba faw ndax boo ko defee day ëllëg ku am fukki doom da nga rendi benn ba ndax day dem ba nekk aada ndax abdullahi mii euh, yaayam ma nga bokk ci euh, banu maxsuum banu maxsuum foofu la bokk ñoom it dañoo ñëw ne abdullahi kii suñ doomi mbokk mu jigéen la waaw suñu jigéen moo ko jur kon nag doo ko rey ni nga ko jure noonu lañ nekkee ay kon nag doo ko rey doo ko doo ko doo ko rendi mu leen nu ñuy def ñu ne ko nag nañ dem xaybar am na benn kaahin bu fa nekk seetkat boo xam ne nii moom euh, mën nañoo digal loo xam ne nii buñ ca jaaree solution mën naa am bañ demee ba àgg nag xaybar ñoom ñëpp bañ àggee nag euh, soxna sa nga xam ne ni mooy kaahin ba maanaam jigéen la moo ne leen yéen ñaata ngeen di joxe diya ñu ne ko ah fukki giléem lañuy ñuy joxe diya fukki giléem mooy suñu diya mooy nag bu ngeen demee nag mu ne leen qaadat lahum farjihoo lil lil ahli min ajalin wa saahimuuhu biha tardaw min alxakami in alqidaaxa ala maxbuubikum xarajat ziiduu waziiduu waziiduu duuna maa sa'ami amma ida maa calayha sa'mu qad xarajat فتنحروها فإن الله ذو الكرم ولم يزل داعيا مولاه مبتهلا أو فرج الله ما يخشاه من قممه لما إلى المئة الأجمال قد وصلت حل القداه عليها فعل محتكم من بعد ضرب ثلاثا kaana naaxiruha musawiya annaasi wal axwaasi min laxami maam alaaji Malick nee bi nga xamee ne kaahin bi neena leen dellu leen dellu leen euh, makka ngeen gaaw su ngeen demee nag na ngeen jël fukki giléem yooyu nga xam ne mooy seen diya ngeen bantale ko ak abdullahi mi ngeen tek ñaari bant bant bi nak su ko bantale bant bi daal di ci abdullahi na ngeen delluwaat na ngeen dolliwaat na ngeen tegaat fukki gilim ba feek bant bi di dal ci gilim yi waaw ñu di ko def di ko def moo tax mu ne innal qidaaha ala mahbubikum kharajat zidu fa zidu wa zidu duna ma saami kon da ngeen di dolli rek ba bant bi dal ca abdullahi ba bant bi dal ca giléem ya ñi di ko def nag ba mat fukki yoon nga xam léegi day nekk téeméeri giléem bant bi nag daal di doog a dal ci giléem ya waaye abdul mutalib loolu doyu ko da koo def ñetti yoon waaye saa bu ko defee rek bant ya daal dal ci giléem ya léegi nag ñi yaa di xam ne léegi abdullahi fukk téeméeri giléem yi jot na ko ñu daal di rendi giléem ya bañ ko rendee nag téerewuñ kenn nag ku ñëw bëgg a jël jël moo xam euh, nit ñëpp ñëw ci jël liñ soxla ak ba ci ndegment yi nga xam ne dañ ko yóbbu ci àll bi ndegment yi rabi àll yi ku soxla jël waaw nga xam ne maanaam dañ ko yaatal daal ba nga xam ne ñëpp daal nañ ci daal nañ cee mën a jot moom euh, Abdoulahi mu nga xam ne euh, jotee nañ ko téeméeri kiléem Euh, jamono yooyu nag dafa dajeek euh, ki ñuy wax abrahatul ashram moom it ne day toj ci kaaba gi nga xam ne loolu la dajeel day ci kaaba gi euh, abraha nag mi ngi bokk Éthiopie Éthiopie nag nguur gu yàgg la woon te amoon doole lool nag waa ki ñuy wax Ziyazan nga xam ne moo nekkoon Yaman bi nga xamee ne najaas yi yónnee na benn armée fële ca yaman daal di koy nangu te loolu it nag euh, xam nga diggante rome yi ak euh, perse yi dañoo yàgg amay jafe-jafe te boo xoolee nguurug euh, Éthiopie ñoom ay chrétien lañ maanaam ñoo perse yi ñoo rome yi ñoo yem ñoo bokk diine léegi nag kon nag nañ nañ nangu yaman buñ ko nangoo mën nañ caa continuer ba nangu jasiratul arabiya gépp ba Sham nga xam ne léegi li ñuy wax mer Rouge lépp day nekk nguuru nguuru euh, Rome yi ak Éthiopie nga xam ne ñoom ñoo bokk benn diine loola moom moo nekkoon seen bëgg-bëgg bi nga xamee nag euh, ndax booba Rome yi ñoo jël euh ñoo jël Egypte boba ak Syrie Liban Jordanie Palestine ba ba ngay ag Espagne ag ay Portugal lool lepp mi ngi ba ci nooru Afrique bi lool lepp mi ngi won ci nguuru Romain yi euh, bi nga xamé ne Éthiopie yebal na ab armée mu dem yaman daal di koy nangou léegi nag euh, Abraha mooma nga xam ne ab éthiopien la nekk ab chrétien nekk nit ku ñuul bi nga xamee ne moom it nag tabax na benn benn benn benn benn église am Xulays ci la ko tudde église boo xam ne bu rafet la ndax euh, bi mu ko tabaxee ba yeggal nag lam bëggoon mooy wàllu économie maanaam xëcc giiru arab yi ñi ñëw si foofa ci moom ca église ba bu ñëwee di ko di ko siyaare si nga xam ne maanaam day dem ba xëcc leen bañ nekk ay chrétien ba it te it daal di dundaat ba nga xam ne léegi économie bi day dox nga xam ne màkka la ko daa jublu si ci wàllu économie ak marché ya fa doon am ak yépp daanaka day dem ba duutu amati nga xam ne saaru concurrence lay doon loolu nag moom la Abraha bëggoon waaye am benn gi benn waay boo xam ne mi ngi bokk ci kinaana daa di sotteeku ndànk dem daa di fay def lam fay def maanaam def fa sobe woon abraha lool nag daa dañ ko xamal ne ko ña bokk ci waa waa waa néeg ba maanaam néeg néeg booba nekk màkk ña fa ña ko ña ko yilif kenn ci ñoom moo ñëw def lii mooy mu daa di mer na lekkoon day dem toj kaaba ga kon toj kaaba gi lam ci bëggoon kon mooy bu ko tojee léegi nit ñi du duñ amati fu fuñ mën a dajaloo di commerce ak defi mbir dañu am fuñ mën a jaamoo yàlla kon dañuy daal ñëw ci église bi loolu nag moom la abraha bëggoon kon wàllu économie ci la bokk wàllu administrateur administration ci la bokk wàllu religieux ci la bokk yooyu yëpp moo waraloon abraha moom it ne ñëw day toj ci kaaba gi nga xam ne léegi euh, waa Màkka du duñ amati ab néeg boo nit ñi dañ fa mën a ñëw motax mam maam malik maalik ne yaa wayha abraat dallat makidatuhu إذ ما يسوق فيولا قاصد الحرم وفي ألم ترى ما يسوى الصدور لمن راله ظمأ في علم حالهم وعبد المطلب لاقاه سائله جماله جماله وهو وهو في نور لبدرتني وقال من بعد ما من بعد أولاه مكرمة حتبت نفسك يا مولى عن الحرم لو سألت حما بيت به صرفت آباؤك الغر بين العرب والعجم وقال للبيت رب سوف يحفظه عظيم قومك la أبقى siwa نعمي mu ne woo naa toskare abraha mi nga xamee ni pexeem ya réer na ngir bam jëlee ay ñayam jëm si ci ka màkka nga xam ne bi mu alam tara kay fa faxal rabbuka bi leeral na rek mbiram abraha ci pexe yooyu mu defoon nga xam ne tayar na abaabil moo mujj ci moom alak ko moo tax bi muy ñëw ba ak si côté saqif ki ñuy wax abu rixaal donte nag yeneen giiri arab nag jéem nañ ko euh, kar euh, pour bañ mu dellu toj kaaba gi xeex ak moom waaye moo leen ëpp doole ndax abraha booba dafa am doole léegi nag bi ñëwee ba ci saqif googu nag saqiif ñoom xam nga boo xërëm bi ñuy wax laata foofa la nekk ñoom it ñu ne ko daal suñ suñ xërëm bi daal moom dañu ñaan rek nga bàyyi ñu ko fii léegi nag mën nañoo booleeg aboo rixaal mi bu ko defee moom mu wan la yoonu màkka waaye nag bi mu agsee foofu nag ba campé nag la yebal armée bi ñu dem nangu maanaam lël lël kiléem yi nga xam ne nii ñoo ne woon foofa nga xam ne Abdul Mutalib lël nañ ñaar téeméeri kiléemam léegi nag moom nag Abraha bi mu campé foofu dafa daal di yónnee ci Màkka maanaam njiitu Màkka kilifa sangum Màkka lay laajte ñu tegtal ko Abdul Mutalib mu daal di ñëw bi ñëwee wax ko ne ko ah Abraha kat moo la soxla woon mu daal di ànd ak ndaw la ba agsi waaye bim mu nuyooyee fekk am na koo xam ne xam na ko xam na Abdul Mutalib kooku moo dugg nag ci Abraha ne ko nag kii mooy sangab Quraysh waaw moom mooy lere ñam yi ba picc yi sax da di jox ñuy lekk waaw moom ku baax la sang bu baax la Abraha it bi mu gisee Abdul Muttalib daal di koy fonk lool teg ko ca kaw waaw wormaal ko ndax Abdul Muttalib dafa amoon daraja bi mu dikkee nag maanaam xëy na bu ko toogal ne ko toogal waaye nu ngi ko toogal ci kaw lal bi te bu fa toogee xëy na waa Éthiopie day am nañ ko gisee ñoom ñaar ñëpp ñu bokk toog ci suuf ndax moom nangu toog moom dong bàyyi Abdul Muttalib toog ci suuf waaye nangu nangu euh, xëy na euh, ba ñu maanaam euh, éthiopie yi mer ngir ñoom ñaar ñi bokk toog ci kawlal bi ñoom ñaar ñëpp kon bokk toog ci suuf ndax wormaal gu wormaal Abdul Muttalib léegi nag mu ne ko nag loolu taxoon a jóg ab Abraha daa jàppoon ne moom maanaam kaaba gi biram kaaba gi moo ko tax a jóg waaye Abdul Muttalib moom la ko taxoon a jóg mooy ay gileemam ba mu ne ko nag man de samay giléem laa soxla nga delloo ma ko ndax da ngaa leel sama ñaar téeméeri giléem bëgg nga delloo ma ko mu ne ko ah yow day bett nga wax man de wax dëgg yàlla ma doon xoolee ak fi nga wàcc tey jii daal jaaxal na ma mu ne ah ko yow ma jógee yaman ñëw di toj ci kaaba gi xool ci man ci mbiram kaaba gi ngay wax ak man ci ay ay mu ne ko waaw kaaba gi daa am borom kaaba gi daa am borom moo tax mu ne ko waqaala min baadi awlaahu makrumatan حددت نفسك يا مولى عن الحرم لو سألت حما بيت به شرفت آباؤك الغر بين العرب والعجم من ko yow day mom dag ma bet li nga xamne nig bi nga xamne say say mamati mam ñoko momon di ci daaw ci daa ca tedd nit ñi di leen dégmal si di fi ñëw di di wati ko wër ma yaakaaroon ne yow bi nga may wax nga may wax ay gileem mu ne ko waaw wa qaala lil bayti rabbun sawfa yaxfuduhu asima qawmika laa abqi siwa naami mu ne ko nag néeg bi dafa am borom man doo borom néeg bi néeg bi daa am borom néeg bi nag gannaaw am na borom moom dana aar dana aar néeg bi dana aar ab néegam yow mi nga xam ne yaa gën a màgg ci saw ci saw nit asima qawmika daane ko man nag laa abqi si waa naami waaw man daal samay giléem laa soxla jox ma samay giléem ma li ma moom nga jox ma ko borom néeg bi nag moo am néegam boo fa demee yaag moom la mu daal koy delloo ay giléemam mu daal di ñëw màkk nag daan ne yéen waa màkk nag na ngeen génn màkka ngeen dem ci montagne ngeen nekk fa waaw nga xam ne moom buy ñëw moom du fekk kenn ñoom it waa màkk daal di génn waaye bi mu xëyee ba dëgmal màkka nag ci la yàlla na daal di yebal nag picc yi nag picc yooyu nag ñoo ñëw nag daal leen di alak waaw fa jaxalahum kaasim maakuul comme ni ko alquran waxe kon at mu moom la wax amul fiil nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën jamono léegi nag amul fiil mooy at ma nga xam ne ci la Abraha ñëwee woon ngir toj ci kaaba gi te yàlla delloo ay pexeem alak leen moo ak armeem mom nak euh abdullah mi nga xamé ne joté nañ ko téeméeri gilen ya bayam di abdul mutalib da ko daal wutal soxna ci bani zuhra euh mam alaji mal day wax ne wa abd mutalib min ba'd marra ila فتاة زهرة ذات المجد والكرم مر على امرأة تدعى بفاطمة تبقي الممال إليها وهي لم ترمي وحاز إذ ذاك عبد الله سيدنا حدوا إلى الخير نافي الضير والنقم لكي ييسرها صدفا لدرته آمنة نفيت عن ظاهر التهم mu abdul mutalib bi nga xamee ne abdullahi mucc na ca eh, rendi gañ ko naroon a rendi nga xam ne moom moom la ñuy wooye yontu bi salaa salaam yab na yow ñaari ñañ waroon a rendi ngir yàlla mooy maam ismail ak abdullahi mi Bayam, léegi nag bi nga xamee ne waajuram di Abdul Muttalib ñu ngi koy wutali soxna dafa dem utal ko ci askan wu tedd muy bani Zuhra ci benn soxna su baax su tudd soxna Aminatu nga xam ne boroom tedd nga la di boroom teraanga ba ñuy dem nag ngi romb nag ci yoon wax ku ñuy wax Fatima benn jigéen bu tudd Fatima waaye nag muy sàkku nag Abdullahi jéng jëm ci moom maanaam Abdullahi takk ko waaye nag yàlla dogal nag boobu mi ngi ànd ak baayam ñi jëm ca euh, bani Zuhra waaye nag bi nga xamee ne agsi nañ nag ci lañ ko dencal soxna Amina mu nga xam ne nag yàlla dàqal na ko mbooleem tuuma maanaam soxna su tedd la moo tax maam alaaji maal di wax ne wa qiila zawajaha wahbun wa qiila wahaybun ammuha wa murabbiha bi xijrihimi wa hiya xiina idin ala sarafan wa nisbatan wa iftixaaran min juduudihimi moom nag moo jamono yooya moo gën a kawe moo gën a kawe jigéen ñi ak teraanga tedd nga moo leen gën a kawe aw askan ci puukare ci seen maam ya ndax mi ngi bokk ci bani Zuhra bokk ci Quraysh moo tax euh, maam alaaji Malik di wax ne moo tax maam alaaji Malik di wax ne euh, di wax askanu euh, soxla aminatu di ko leeral ne aminatu bintu wahbin ibn abdi manafin ابن زهرة أم المصطفى العالمي ابن كلاب وقل فيه انتسابها عاتكة قيل هند أم وهبه مانام بوخي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة بني زهرة ابن كلاب بوني عبد الله ibn abdul muttalib ibn haasim ibn abdu manaaf ibn qusay ibn kilaab kon noonu lañ bokkee ñi ngi ñi ngi bokk ci ñi ngi seeni maam yi ñi ngi agsi ci kilaab foofu lañ bokkee euh, ci lañ ko dencal moom soxna amina mu tedd moomu nga xam ne euh, maam alaaji maari ngi wax ne biñ ko joxee naan laylal arubati xallat durru fi rajabin sumal munaadi yunaadi musma il fahimi tanabbahu anna nuural xatmi laylakumu qad xalla xaymatan min athuril qiyami mu ne ci guddig ajjuma ci rajab la leer ga wàcc ci soxna aminatu la leer ga wàcc ci soxna aminatu maanaam leer ga nekkoon ci abdullahi nga xam ne mooy leer mooy leer gi nga xam ne nii mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddik àjjuma jooju ca la leer ga wàcc ci soxna Aminatu nga xam ne am na wootekat buy woote ñépp di ko dégg mu ne yeewu leen leeru ki nga xam ni mooy mottali yonent yépp wàcc na ci seen guddi gii ci xayma gi gën a tedd ci xayma yi xayma gi gën a tedd ci xayma yi daan ne an atirru baxirru xaylal xayral buxuuri wa afrishu sajaadaati takriman ala alxanami qaala almalaa'iku abwaabu samaa'i futiat kada aljinaanu wa nuuru samsi fi alcidami wa jaa'a آدم تبشيرا وسيس لها إدريس نوح وهود وخليل سمه ثم السبيه كليم الله كلمته من أول الشهر في الترتيب لا تهمه nga xam ne maam alaaji maa ngi mi ngi wax naan guddi gu guddi guddi ajuma jooju nga xam ne ci la leer gi wàcc ci soxna aminatu bintu wax bin mi ngi naan mi benn woote naan na ngeen gëttu na cuuraayu ngeen ji cuuraay te ngeen lal si yi te ngeen teral gan gi nga xam ne mu ngi ñëw daan malaayka yi wax ne bunti asamaan yi di ubbeeku na àjjana it ubbeeku na leeru leeru jant bi yokkaat nañ ko ba mu gën a màgg nga xam ne bi nga xamee ne soxna Aminatu bintu Wahbin euh, dem na ba nga xamee ni làq na leeru gi làq na leer gi leer gi jóge na ca Abdullahi wàcc ñëw ci moom weeram wu njëkk aadama moo ñëw bégal ko ne ko yow kat yaa ngi yaa ngi làq leeru ngeen ji mbindéef siisa daldi ñëw ci ñaareelu weer ba sa ñëw nooxi ñëw Hóot ñëw Xalil mooy maam Ibrahima alayhi salaam ñëw ba ci maam Ismaayil ba ci yonent yàlla Muusa moo tax maam alaaji maa di wax ne duma sabiixu kalimullaahi kilmatuhu ba ci mooy yunti yàlla saa kilmatuhu yunti yàlla isa min awali shahri fi tartibi laa tahimi nga xam ne euh, yonent yi mu tudd yépp weer wu ci nekk ab yonent ñëw na ndokkeel ko nekk yow kat yaa yaa làq leer gi nga xam ne nii mooy ngën ji mbindéef nga xam ne nii mooy xettali jamono ëllëg yow ya ya yak ya ya ya lak leer gi mom nak soxna aminatu bi nga xamé né arab yi comme ni def nga xamné dañuy yaxantu abdullahi mi nga xamné euh biñ ko joxé yagut ci ñaari weer la toll rek ci la daadi la xass nak and ak ñeeguma digam gëm màkk mi nag bañ démé nak ba nga xamni euh agsi nañ madinatu mën a war nag ca la ak tawat daal di dugg nga xam ne daal di faato bobu yonent bi wasallam gëné ko jamono kon yonent mom afa muy gëna jamono rek ci la wajuram abdullah momu daal di noppalu mom ñi denc ko ci madinatu mën war ñen ñi sax neñ nañ wala, la ñenn ñi ne madinatul munawwar la fofu lañ ko denc xamna rek dañ ci doon euh di jéggulu ñëpp rek di barkelu ci euh, gane jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ne jotuñ ci aksi waye dañ doon dañ ko dañ ci doon waxtaan ba aksi fofu rek waye nak ñi ngi rek su amee ay teq-teq nag ngeen xam ne matadik doomu aadama la su fekkee nag mat na nag am na lu ci mat ñu xam ne ndimbalal suñ boroom la wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh